auzu billahi min asheytaan rajim bisimillahi rahmaani rahim allahuma salli ala seydina muhammad wa sallim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppe yeeg xarit yi salaamaaleykum fu waay mën a féete ci àdduna bi tey seetaan émission wareef noo ngi lay dalal ak jàmm ci sa kanamu télévision Futur Média mu doon bànneex bu mag ci ñun dooree émission bi nanu ko baaxooy defee muy tradition nag ci ñun nuyu bu baax ak ku sargal sunu PDG président directeur général nuyu mboolem directeur ci euh, ci mboolem directeur ci kër gi ak képp ku yàlla dogal nga xëy si ci bii kër noo ngi lay nuyu bu baax a baax di leen wax bismillah leen ci seen émission wareef nu daal di dugg nag ci biir dëkk bi dem seeti sunu ay kilifa diine ak sunu ay kilifa aada di sàkku ñaan ci ñoom itamit di leen ñaanal yàlla yàlla yokk seen tawféex yàlla defal leen jàmm macha allah boobu jàmm yàlla na ko wasaare ci àdduna bi bu nu waxee nag société faw faaw dinañu laal couche yu bëri ñu ñu liim ak ñu ñu liimul waaye ngeen jàpp ne ñëpp ci la nu bokk moo tax suñu xel dafay dem bu baax a baax a baax ci aji yi nga xam ne ñu ngi nekk ci biir prison yi caabi féete leen gannaaw noo ngi leen di sargal di leen nuyu di leen nemmeeku di leen seet bu baax a baax di ñaan yàlla foofu ngeen toog yàlla na doon lieu de méditation te ku wax méditation di nga ca jële yokkute ndax di nga ci jëlee ay décisions et dans la vie il faut prendre de bonnes décisions noonee la ñuy duggee ci biir hôpitaux yi dispensaires yi ak clinique yi di nemmeeku malaat yi fa nekk noo ngi leen di ñaanal yàlla ngeen gaaw dellu seen i biir njaboot ndax da cay am solo waaye nag bu nu tàllalee loxo rek incha allah ñaan ki nga xam ne mooy maye dana nangu ñaan yépp kon bokk na nu ñaanaat bu baax yàlla na yàlla wéral leen bu baax a baax a baax a baax jamono bu nit nekkee ci bànneex am na koo xam ne ma nga nekk ci tiis ba talul def ñun lu ñu toog fii di ko def muy émission wareef kookee tam ñu ngi koy nemmeeku di ko massalu bu baax a baax a a baax di leen wax ne nag Sénégal a ngi nii les Sénégalais de la diaspora ñi nga xam ne ñu biir Sénégal noo ngi leen di beral nuyoo bu baax a baax a baax a baax noo ngi ziar ziar kilifa yi duñu tàyyi ci di ko wax ndax réew ma mi bu baaxee kilifa yaa ko baaxal mm-hmm. ñuy ñaanal sunu maam maam Cheikh Tidiane Sy Al yàlla yóbbu ci aljana yu gën a kawe macha allah am ñu yaakaar ne yàlla danañu ko defal yàlla itam taas ñu ci barkeem incha allah rabbi soxna mami waaw yow itam dañ lay wax bisimilah. wallaay ndax bu nu accès fii di la dugal. nga nuyu sa maam. <laughs> Euh, ñaan yàlla yàlla de euh, naka musut aw fan. Nelson Mandela Mandela tëpp koy jaloore. dëgg la ma jaaxal de mooy yi nuyu ndey def yëpp moom xanaa bu ko xanaa dañuy xaar kii bu bees bi. ubbi fee ñu yaa ko waxal sa bopp de. nuyu ñu ñoom ajaratu sama xaritu bopp. dama koo namm sa man waaw dëgg la. dama koo namm moom nag xam naa war nañ dem jël ko. nammatuma jaune blanc. mu wan maire yi nu ñuy defee cuub ak lunette. waaw jekk cuub rafet lunette laa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 noonu la ñuy ziyaare mbokkam ma xaritam ba Cheikh Sidi Al Muxtaar ak mboolem ak lu mbàkk yu gépp di ñaan yàlla ñu yàgg fi lool lool lool te wér noonu lay ziyaare itam sama maam Kamara Jibi Anta yi dellu seeti na yaay dégg ni yàlla na xëppee ci àjjanay firdawsi ya di ziyaare itam maman Kinushka ak eh, yaay Nafi di ziyaar waa kër ga yëpp noonu lay ziyaare itam sama yaay yaay Astu Jara di nuyu Manteek Mimi Traoré yëpp maa ngi leen di ziyaar noonu lay ziyaare itam yaay Astu Seck mère Ndoy ak Mari sama soxna soosu nga xam ne du musa am wujj moom ak ay Aïcha bu bubaakan mi ci kër gi noonu laa leen di ziyaare di ziyaar bàjjan Awa Diop waa attu sëy bi seen nuyoo ngoog jërëjëf soxna mami nu ngee ñaanal yàlla sunu xalifa généraux yi xalifa général Alamine yàlla na ko fi yàlla yàggal. allahumma amiin euh, Serigne Touba Cheikh Sidi Mokhtar itam nu ngi ziar waa ëttam yëpp wallaay wallaay nu ngi koy ziar di ko nemmeeku bu baax a baax a baax. du nu fàtte waa ba Sekkeen du nu fàtte waa Njaareem macha allah. dëgg la du fàtte waa Cambérène. déedéet Chérif Abdoulaye noo ngi koy ziar bu baax a baax. Mhm. Euh, waa Pire itam ñoom Baye Baddo sama bàyyi bopp nu ngi koy nuyu. Jibi Diagne moom parent nu ngi koy nuyu mën naa laa nuyul ñëpp. waaw waaw <laughs> jaajëf. <laughs> bisimilah jaajëf Eva ñu ngi lay ziar di ziar kilifa diine kilifa aari ci réew mi yëpp. Mm. di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bass Abdou xaata di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér moom taalibe yëpp di comme ni ko waxee rek sëñ Moustapha Cissé lañ fay jiital. Mm-hmm. Euh, di di di ko ñaanal moom tam gudd fan. Mm-hmm. ak ki nga xam ne moo di Baye Bado Dieng sa xarit bi. Mm-hmm. ak ki nga xam ne moo di moom parent Jibi Diagne ñu ngi koy ziar moom tam kooku mm. xaritu mami la am na fu jaar mm. ak ki nga xam ne moo monsieur le maire sunu papa Serigne Boub ñu ngi koy ñaanal moom it bu baax a baax ak ki nga xam moo di Serigne mbay di notable ca dëkk ba nekk fii ci cité kër Damel ak ma soxnaam madame mbay di ziar ñëpp rek ak sunu imam ba sëñ Moustapha Ka ñooñ ñooy notable dëkk ba tey moom xam naa ni damaa soj dama leen di bàyyi wax yaa ngi koy wax sànq. waaye xam nga dama leen di bàyyi wax am na internet bi nee nañu Mbadou Ndoye Bane dafay gën a liggéey ñeneen ña du ma waaye nee nañu yaa ngi def vraiment liggéeyu policier. ndax ci sa ay gestoog yooyu. Euh, euh, kii nu ci euh, fële waaye dimbali ma waaye. tur bi waaw noo def ak xalaas tey. de xalaas de bis bu nekk comme d'habitude rek sénégalais yi dañuy xëy. ñoom ñëpp ci boppam buzz la. waaw Séné non non Sénégal ci boppam dañuy xëy ñoom ñëpp branché wu ci xalaas parce que lépp lu ñuy lu normalul te ne ci dëkk bi rek uh-huh. fa lañ koy fa lañ koy waxtaane uh-huh. euh, fan yëpp ñoo ngi traité benn affaire boo xam ni par épisode la uh-huh. noonu laa ko tuddee am na ñoo ngi ci deuxième épisode bi parce que benn histoire bu garaaw la benn waaye bu ñuy jiiñ néew ma moo def waaye dañ koy jiiñ Euh, affaire u escroquerie ak ñoom seen parce que day takk xale yu jigéen yi nekk bitim réew waxoon naa la fii benn thème ni la xale yu jigéen ñi ne bitim réew te liggéey ba am alal fii ci mhm. réew mi nañu moytu yenn góor yi ne ci fii ci réew mi mhm. waxoon naa la ko fii mhm. benn waay la boo xam ni daal nax na benn xale bu jigéen bu nekk euh, France ndax benn xale bu jigéen bu nekk Suisse toujours même nit waaw lekk ci ñoom waa ay millions yu bare bari néew ma nag moo ko def waa xale yi jigéen yi ci boppam loolu studio bi nañ xamante ak ñoom. te même scénario yi lay répété waaw disque la rek bu muy teg boo demee ci un mois mu takk ci ñaari xale. Ah, ñaari xale ñaari jigéen ci un mois. Mhm. xam dafa doy war jaay seen i terrain ci ñoom la ñu wax. Mhm. waa ji tamit dem ba mu déggee affaire bi ñëw na pour expliquer ma. Mhm. nee naa ko heure boo bëggee tontu na nga ñëw tontu. parce que élément bi mu jàlleeg léegi man ñi ma woo ci téléphone di wër waajooju dañoo bari allahu akbar néew ma nag moo defam deful. xam nga xam nga lu doy waar. Mhm. na ma baal ndax xamaguñu sax ne moom la am du moom. waaw mbir moo nekk ci àdduna rek. Mhm. faaw bés dana am. Mhm. nga ne fang. moo xam lu munti doon ni ngeen jaaxle woo ci. dañuy da waaw romb naa ci naa ci jaaxle. xam eh. tax gaa yi bind li ñu bind. waaw te li ñu bind day dëgg nag. dëgg la ndax xam nga dañ naan ko amul njariñ amul koo soxlaa la gu fi nekk. te boo amee jaaxle ci ki nga war a jëm jooy fa. waaw kooku da gënal ñëpp ndax mooy. maa la mais dafa muy nuyoo mooy Jibi Jaañ moom parent nee na sama xarit la xamul fu ñu jaar waaw xam nga Eva yaa ma gën a xam ne xale ku ko lebal teraanga du ko fàtte jox paas ak yeneen ak yeneen dañ koy lekk ci école ba dëgg la léegi nag bu ñu dëppee ba ñëw ba ci moom fu mu nekkoon dañuy taxaw donc day génnee xaalis séddale ñu xam nga xale boobu jëlee nga ko fa sore sore dina paas ñibbi dina def yeneen yeneen ak yeneen ñu gis tamit euh, bébé la ne mu di ko def Thiès ak yeneen te ñu dëkkoon Thiès donc yooyu daf ñu doon marqué ci moom moo tax mu nekk suñu kii mbokk yi et ñu xam doomam tamit mais li nga li nga wax ci waa ji waaw que dafay takk di dem ah. nee naa la woon ki war a tànn bu tànnul ba for lu mu jur jël lu mu xam ba ca ndax it dafa am nu ñuy wutee jëkkër ak nu ñuy wutee jabar waa gis nga góor yu buñ ko bawut ci réew mii ah. diw daa góor yu ah. faaw ma sëy ak moom ah. na la wóor na yaa ngi sëy ak daanaan lu amul cummikaay est-ce que yëgal pas dafa man yéen ñaar ndax góor yu ndax yëgal naa leen ne yéen a may faj est-ce que xam xam nañ ne ñoo lay ne leen ma wii wala non. al amin Cissé nee na laf cat ci équipe bu waree. tabaarakalla li mooy li mooy bisim gis nga ni ñu ko defee moo am ci bureau yi mbokk yi yéen sa xam ngeen ko kër itam balaay neex suba teel bu nu tegee ndékki yi ngeen daa dee saafante daa dee waxalante lu baax daa dee fàttali cosaan su baana ma kër goo xam ne saa bu nu xëyee ñu ngay xuloo wala saa bu nu xëyee ñu ngay jëw lu waay di def na nga xool la gën a rafet nga koy def mm-hmm. kon boog seen émission wareef ñu ngi doon waxtaanee yi nga xam ne dañoo juddu indaale malformation wax naa ko démb nga am sa doom wasin ci clinique wala hôpital la wala fu mu munti doon nga gis bébé yëpp daal di nekk ay bébé bien important mhm. waaye yow yàlla choisir la boo xoolee rek yàlla dalaa tànn jox la kooku parce que xam na bu baax ne loolu wax dëgg yàlla mooy sa bos yàlla du juum du jaawale moo tax bu la joxee itam danga nga ànd ak gëm yàlla te gungeel ko loolu nga xam ne moom la la jox kenn bonul kenn kenn bonul nu ñu koy waxee koo toppatoo rek macha allah mu mu am ndëgër ñoo judd indaale malformation mukk mukk bul yoon mukk ba ne waay waay kii sonal na ma kii yàlla dem na ko mami li ngeer waxee dem mm-hmm. ma ndekete yoo loolu tam am na waaye mbokk yi bu mu leen dal mukk mukk mukk yàlla mooy dogal te xam na ne loolu ngeen moom mu jox leen ko mm-hmm. ànd leen ca ngëm bu mat sëkk ànd ca ful ak fayda ngir yàlla ngeen gungeen nu sunu doom yooyu mm-hmm. kon boog ubbil nañ leen antenne seen ay seede daf cay am solo lool lool lool li ngeen vivre yéen ñi ko vivre yéen a ko mën a dëgg yàlla nu waxtaan te bu nu waxee waxtaan njëriñ lañ ca bëgg a jëlee mbokk yi. Mhm. ubbi nañu sunu ay antenne waaye balay dara soxna yi xam ngeen ne danoo baaxoo di dem kër aram jàppale bu nu waxee kër aram jàppale il nous donne de bons produits. Mhm. nañ leen yër ba noppi daal di dellu si waat ci plateau bi. jërë ngeen jëf mbokk yi waaye jërëjëf itam kër aram jàppale ci produit yu baax yi mu ñuy jox ñu ñun itam am na nañu beneen élément donte ñu ngi waxtaanee nag xale yi juddu indaale malformation nga xam ni seen waajur yi wax dëgg yàlla dañu leen di yor ci ay jafe nee nañu boo amee sax as tuut boo leen dencee dafay tane waaye boo ko amulee itam dafay gën a jafe lool faw mu ànd ak gëm yàlla bu mat sëkk. pour que nga mën caa génn jamono bu ñuy waxee nag waxu doom bu am jafe am na itam ñeneen ñoo xam ne dañoo juddu waaye bu sàgganee wax dëgg yàlla dana métti ci ñoom. Mhm. donte nag yàlla moo yor ñëpp ndax ñoom itam seen jur yi ah doy na waar nañu xool élément boobu daal daal di dellu si waat ci plateau bi. ay maa bi xale yi maa jur kii kii sama goro la moo jur seex yi. Mhm. waaw mhm. man maay maamam moom xel seex yi maay seen maam. Mhm. seen yaay ngi nii maa ko jur kii sama goro la. kon doxoo jotu suñu ginnaaw moo tax lu ñëw. lan ngeen bëgg. xanaa sàkku ndimbal rek. Mhm. te lu ñu man jigi suñu morom yi jigéen mhm. ñu dimbale no rek ci seexi yàlla yi. Mhm. lu ñu andi rek ci ndimbal rek baax na. seex yi ñoom ñëpp ay jigéen lañ. waaw ñetti jigéen lañ. ñetti jigéen lañ doon. ñu ngi juddoo Taïba. ba Taïba motu fa. ngeen fa ngeen xëyee daal di ñëw fii di sàkku si ndimbal. waaw ci xele yi rek. lu nu waaye mën a jàppale rek. donc ci sàkku ndimbal bu baax te luñ ñu jàppale rek baax na lan ngeen bëgg xaalis wala ab dund wala dund ak xaas yëpp rek lu ci jàmm rek baax na mm-hmm. waaw lu xale yi dundee ak xaas rek xanaa si borom këram moom dafa amul doole wala borom moom amul doole moom mbuur lay liggéey waaye sareet la yor di dawal mm-hmm. pour bëgg teraangaay waa këram rek mm-hmm. xam nga lool moom bëgg teraanga la waaye sareet moom mënul dara ok te yàlla dogal na lii ci diggante bi d'accord waaw ah, Ndoye Bane boobu tam beneen dossier la de wax dëgg yàlla waaw ah, jamono ji am pour am rek benn bébé yàllaa ngi waaw yàlla day <laughs> dafa doy waar moom nii nii ay mbiram nii la maa ngi la doole doole doole yamul mhm. dawul sàkkuwul pour am ñetti doom mhm. sàkkuwul pour am ñeenti doom mhm. yàlla jox ko ñeenti doom ay nit nekk fi am ay milliards soxla benn doom mënuñu ko am yàlla jox ko ko te amul xale xale yi amuñu sax luñ sol waaw amaguñu luñ sol te dëkk bu sori lañ jógee ah tey bu mutu fa ci ca ginnaaw uh, fële maam yi xam naa moom mooy gën a xam secteur boobu ci benn village village lañ jógee ñëw ba Dakar. fekk se ma pour ñu defal leen lu mel nii. du du toujours lañ koy def nag mais dafa am yoo xam ne kenn mun ci sëgg. voilà soo ci jàppul defuñu ko pour jëkkër ji defuñu ko pour yaay ji. mais xale yi ci boppam la ñuy la ñuy lañ bëgg jàppale pour que ñu kii du tey nag lañ ko mu lañ lañ ko mos a def mais yenn saa yu mel nii moom mënut a ñàkk. ñuy ñaan rek képp koo xam ne danga am yére yoo yoo soxlaatul sa kër. Mm-hmm. te bébé yi mën koo jëfandikoo képp ku xam meew ko am kuus daal nga indee fii ci télé bi wala nga indi ko ci rajo bi incha allah ñoom dinañ ci jot. ak loo leen mën a jàppale damay ubbi itam jërëjëf Ndoye Bane ubbi rek benn brèche pour parce que nag wax da liñ naan sujet du jour sujet d' <coughs> ñoo ànd. damay dem directement seet waa MEDES. waa ñoom laay wax merci. Mhm. parce que gis nañ ne jamono bi ñu nekkee di waxtaan ci xale yi nga xam ne dañoo juddoog formation nekk ci ay situation yu difficile Mbagnick Diop itam ci li ko yàlla may wax dëgg yàlla mi ngi góorlu pour pour pour dimbali xale yi nga xam ne dañoo am autisme kon ñun duñu mën ludul wax dëgg yàlla remercier waa MEDES ñaanal leen yàlla mhm. xam nga ñun demuñu sax jege leen waaye mhm. danoo gis rek wax ko xam naa bu ko ubbee fii def ko benn brèche dana leen def ree waaye danoo gis te yëg nañu jéego yi nga xam ne mhm. mi ngi koy def ci xale yi nekk ci situation difficile alors Mbagnick Diop et toute l'équipe nu ngi leen di remercier di leen ñaanal yàlla yokkute incha allah te bu sobee yàlla kanam rek ngeen jëm ku def lu baax pertoo ko xam nga fesalug mbaax li tax day suulug mbon dëgg la ndax day tax ka nekkoon ca mbon ne kon mën naa ci jóge c'est vrai sénégalais am na ci ñoo xamante ne yor nañ lu ne gàññ waaye dañ naan xaw ma fu ma koy def xëy na nag boo waxee koo xamante ne gis na soxla wala ma ngay def lu baax mhm. xëy na ñoom dina leen puusu pour ñu dem defi lu baax mhm. am na koo xam ne ma nga tëdd yàlla mënee na ko gan may na ko lépp mhm. moom pour moom kenn ñàkkul dara donc day tëdd rek jaaxaan mais moo tax nag bu ñu gisee ko def lu baax ñun soxlawul ñu di la xam soxlawul ñuy dem ci yow soxlawul sax ñu di la nuyu mais dañuy wax lu baax loolu nga def pour Sénégal xam ne ndekete am na fi ñu desee baax léegi mhm. mais lii daal na ci ñëpp di jàpp mooy que bu la yàlla mënee gan ngay taxawal yenn ci réew mi nit ñi di la mhm. wuy si comme ni ko Ndoye Bane di waxee mhm. taxawal ci centre taxawal ci jàppale xale yi démb rek xam nga bi ñuy jógee fii di ñibbi maa ngi lay tooñee naan la li sama frère ba waxoon na ñëwaat ci sama xel yaa ngi dee présent wu nit ki nekk mooy sa futur kon def ci balaa ëllëg yàlla xamoo lan la lay may ndax yaa ngi ëmb di wasin te xamoo wane na la gan nga def foofa ca centre yooyu mm-hmm. wala nga jàppale ñamu dal dafay tax ñoom itam bu ëllëgee bu ñu amee dañuy am doole wu jàppale mm. ñeneen ñi. soxna li ngeen ma bëggoon ñu dellu siwaat bu baax. Mm-hmm. ndax euh, Ndoye Bane mi ngi ñuy tooñ ne moom dafa soj Ndoye Bane dafay baax nu waxtaanee ñu waxtaan ak yaay yi. Mm-hmm. ndax da nekk yaay yàlla may la gone goo xam ne dafa dikk ak ay laago. Euh, boo moytuwulee rek suñu société bi bi ñu nekk. Mm-hmm. da nga koy nëbb. ole lieu que nga jël xale bi rendre ko autonome. nga gunge ko. ndax que mu mun a développé wu ba ëllëgam mën a tax tuuti. doo ko def dangay ngay daal di jël xale bi di ko nëbb léegi saay sax ñu traumatiser la ba tey ci biir société bi mhm. Mhm. ne yow dafa mel ni ay rab ñoo la topp ah, bu ñu la waxul waxu rab léegi saay ñu ngi lay jiiñ ay mbir mhm. di nga dem ba léegi saay dafay nasaxal sa sëy dafay dafay yàq loo xam ne daal vraiment mënoon naa baax ci famille lenn rek waral ko mooy juddu xale boobu kon c'est traumatisant nañu jël ki ci ligne bi jëlal ki ci ligne bi ba noppi ñu dellu si waat asalaamaaleykum maaleykum salaam. sëriñ bu baax bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar. soxna si na ngeen def waaye mbaa yéen a ngi ci jàmm. ñu ngi sant yàlla bu baax ak boo bëgg nga yokk tuuti ah, baat bi. ñu ngi lay déglu ci li ñuy waxtaane yaa may dégg léegi. waaw maa ngi lay dégg ñu ngi lay déglu ci li ñuy waxtaane waaw ça va mais man euh, Espagne laa leen di woowee. ñu ngi ziar waa Espagne yëpp. waaw ñu ngi leen di ziar dama dégg léegi benn kii. Mm-hmm. waaw mais est-ce que mënoon naa am numéro téléphone ndaw sëñ boobu pour mën koo jot euh, wax na wax ak moom. dëgg la dina la ko jox léegi. na ko vieux jël ci suuf. na ko ñoom na ko nañu ko jël laasana mm-hmm. na ko jël ci suuf. bul coupé ñu jël la bu ko defee jox la numéro bi. Mhm. très bien ndax ñun yu ni mel daf ñuy gënal sax ñu demal seen bopp mhm. directement. Mhm. dëgg la jokkoo ko waa kër ga. moo ñuy gënal. li ngeen ñu dellu waat ci li ma doon wax. nga jur doom mu war a nekk bànneex. mu daal di nekk coono ci yow nanu yàlla baal. ndax yàlla lu mu dogal coono newu ca. dëgg war a nangu rek te yàlla tax. waaye xam nga boo ko jëlee yow mi muy mi ko yàlla teg ci yow def ko coono. nangu woo ko a neex ko mais su fekkente ne yow yàlla dafa ñëw ak dogalam nga daan ne lu tax mm-hmm. te booy seetlu ñun sénégalais li ñu sonal mooy lu tax mm-hmm. lu tax man lii dal ma te dalul keneen lu tax man aw ma lii te keneen am ko mm-hmm. lu tax yàlla tegg fi ñëpp ñëw teg ma ko dangay dem ba dégg ku naan man lu ma def yàlla lu tax mu fayee ma doom dëgg la te xamoo ne xëy na yow yàlla am na lu nekk ci yow lu mu bëgg a dindi wala lu mu la bëgg a liggéey loolu te xëy na mu yónnee la lool noonu ngir nga liggéey ci am na ci ñoo xam ne sax yàlla da ciy far seeni bàkkaar moom lay dégg wolof di wax naan ku yàlla na mu fay du la liggéey lool daa amul bor de ci yàlla amul magasin bu muy denc bor xam nga boo demee ci boutique yi di jël da nga leen di fekk ñu am carnet bor mais su fekkente ne yàlla moom amul fu muy denc bor du leb kenn kenn du moom bu ko defee nag moom kay la la jox moom dala caa liggéeyloo ngir am na xëy na yow lu mu lay fanqal xam nga nit ñi bu fekkonte ne dañoo lépp lu ñuy def dañ cee boole gëm yàlla mm-hmm. lépp dafay yomb dëgg te loo jël ak ne na yomb yàllaa ma ko teg rek sañu ko bañ lii mooy sama cër rek mu mm-hmm. noppal la jërëjëf démb damay waxtaan ak sama benn euh, rakk bu ma woo waaw nee na ma moom ay doomam dañu dem ba dañu am problème ndax xam nga bu ñu demee ba di ko jiiñ ay rab dem ba di ko jiiñ benn famille naan parce que ñii ci askan bii la ñu bokk te askan boobu dañoo yori rab donc doom ji ñu jur nii lay mel dëgg la ñu dem ba yow jeeg bii sëy ci kër gi maa ngi la koy wax démb ñu di la tam mm-hmm. dem ba di la jiiñ leneen naan est ce que du ba nga ëmbee da ngaa nekkoon ci lu la neex est ce que du da nga doon mooy est ce que du da nga doon lii c'est-à-dire li ma ne la gis nga yommal xiyaam mm-hmm. yàlla buy wax ak yeneen àdduna bi yëpp xeet yëpp nu muy day jóg taxaw Sénégal di leen àtte. Sénégal bu sénégalais yi dee ñëw pënd bee koy wan na sénégalais yaa ngi ñëw yàlla day toogaat séesam ndax bu ñu dikkee dañu koy baab ba toog fa. allahu akbar salaamaaleykum. maaleykum salaam. ajaratu bisimilah yaa ngi ci émission wareef. waaye Eva maa ngi leen di nuyu. noo ngi lay fay bu baax waaye. ajaratu xaar mbuub Milan waaye maa ngi fii ci Sénégal. ndeysaan yàlla na séjour bi neex te barkeel. thème bi ngeen di wax nag daf maa intéressé trop. ndax man damaa am doom bu góor boo xam ne moom rek laa am ci góor. Mhm. est naa ñetti doom yu jigéen. Mhm. mais gisul doxul. waaye nag macha allah ba mu juddoo ba nëgë ni ñàkkuma dara. ay ndeysaan mu gënal ñu nag ñun sunu at mooy sunu xol mooy sunu àdduna. Mhm. sama borom kër dafa gaañu temps yi waaye daf ko bëggoon mbëggeel goo xam ni. ndeysaan. gis lu mel noonu. ndeysaan. Eva ma dégg démb ni yow dañ cee am yow itam ñu lay félicité ma gën a kontaan ci yow gën laa bëgg. jërëjëf. incha allah dinaa ñëw ba man mën a kutir seet si la. ndax damaa kontaan <laughs> bu soobee yàlla. na nga jàpp sa doom jooju téye ko bu baax ñàkkatoo dara. macha allah alhamdulilah. man sama doom ku ñëw sama kër sax bala ngaa toog dama la naan ñëwal nuyu Mouhamed. dëgg la. waaye ku ko nuyu boo ñibbee. Mhm. même boo defee un an gisuma la foo ma jotee da nga ma naan ana Mouhamed dafa def ci sama xol bi boobu ba nëgëni. waaw mooy suñu xol daal ñun. moo ñu gënal lépp ci àdduna macha allah wallaay yooyu yàlla li muy joxe ku nekk lii sëb cër la lay jox boo ko fonkee rek mu teral la ci teraanga joo xam ne macha allah. wallaay gërëm nañu yàlla ci façon doom boobu mu ma jox. wallaay gërëm naa ci yàlla bu baax mais avant maa ngi lay félicité bu baax macha allah ci mm-hmm. loolu. merci beaucoup sa doom jooju baax dinaa la seet si incha allah. bu soobee yàlla. <laughs> ndeysaan <laughs> jërëjëf mhm. jërëjëf ñu ngi nuyu bépp yaay boo xam ne wax dëgg yàlla da nga jur doom mu nekk autiste nga jur doom mu nekk trisomique mhm. nga jur doom vraiment mu feebar loolu ñu ci sant yàlla waaye di mhm. ko wax rek macha allah yàlla yàlla na wéral lépp yàlla na defal lépp incha allah moom rek a mën a fekk gis nga Sénégal dañoo war a bàyyi maanaam xaw xeebaate lañ ko mën a wax. Mm. wala nit dara dal ko ñu naan est-ce que est-ce que est-ce que da ci laxas loo xam ni. Mm-hmm. Mm-hmm. gis boo gis ci àdduna bi am na ku fa judd koo xam ni nam waroon a mel melu mm-hmm. boo gis. voilà ñii dañuy nëbb seen bos. Ah. ba pare di wax bosu jàmbur. mais famille boo gis. Ah. mën ngaa nekk ci famille nag gisagoo ko waaye soo laajee sa yaay dina leen mi ah way sunu sa papa amoon na nangam donc. nañu bàyyi di oh, di di di ber nit ñi ak di leen waxal yéen te fii toujours jigéen ki mooy sonn. dëgg la nga gis dara xew ci benn famille. Mm. yow nga sëy si ca famille ba jur fa loo xam ni famille ba yàgg nañu faa jur lu mel nii. Mm-hmm. ñu koy nëbb yow yógoo ci dara ndax yow da ngaa sëy si rek. ñu la koy xase yow. waaw fekk mbir ma weñ nga. weñ nga ba mu bañee yàgg na de. Mhm. weñ nga naka am na noo koy. weñ nga weñ nga bañee ca nja mbaa njaxaan nga. jël tegal foofu baaraam jël sa loxo jël ki ci ligne bi. dellu si waat allo mhm. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. allo. allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Ndoye Bane maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay yëkkatil kàddu wala ñu yokkal ñu fi dégguñu dara. Ndoye Bane maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay ziar bu baax soxna euh, sëñ bi. Euh, dama amoon fii soxla tuuti sama benn jarbaat bu am euh, maanaam jafe-jafe feebar bu méttee métti ma bëgg am sa numéro pour waxtaan ceeg yow. waaw baax na ne la ko waa régie jox. incha allah. jërëjëf. dégg nga. Mhm. yow jeeg bi ci kër gi. am na lu xew ci famille bi nga sëy si loo xam ne moo jiitu sa juddu te mosoo ko xam. Mm-hmm. nga ñu am doom bu am mal formation fekk lii du lu bees ci famille bi. Mm-hmm. parce que am na loo xam ne day topp famille. mu topp famille ba est-ce ci yow jéeg bi ci kër gi yow mosoo xam ne famille bi li amoon na fi lu yàlla dogal la di ko defar ci famille yàllaa ko dogal. Mm-hmm. mais yow nga jur ko nit ñi léegi ko ñu wax la dëgg gi ñu la koy xase. naan jigéen gaaw nañ ci voilà jigéen ñi dañ la koy xase say goro di la ko xase say njëkkër di la ko xase te ñoom xam nañ ni lii nii ci seen famille la loolu da loolu da loolu loolu day am. Mhm. am na ci tamit ñoo xam ne ku famille ku jigéen ki tamit mën nañ ko di xase ku famille ku góor ki. fekk ay ñaar nit suñu jokkoo rek xam nga deret deret sosu na te su deret sosoo. xasante oh, xasante waaw deret xasante xasante te deret dafa foor mhm. xam nga da ngay gis koo xam ni ñaari nit ñoo xam ne ñoo ay doom doomu ndijaay doomu bàjjan la nga jur doom muy niroog trop sa doomu ndijaay muy niroog torop sa doomu bàjjen c'est parce que deret deret moo foor mm-hmm. xam nga donc Sénégal kenn wuru ñun bu ñu mànduwul fu ñu jëm doy baal Sénégal gisal ma lii da ngay jur doom sax soo sàgganee mu niru ak sa dëkkandoo. voilà gisal rek li ah su niroog dëkkandoo ba nag man sama xel da cay tey. sa xel da cay tey waaw ah déet. Paul Fouta bi ci koñ bi di jaay boutique jóge Guinée ubbi boutique nga jur doom muy ndoog Paul Fouta ah. kooku ah loolu bokk loolu bokk teg li may wax de dama mës gis benn jigéen <laughs> dafa ñëw dëkk si ci benn kër ndoy ah. <laughs> li ma lay wax lu ma lu ma teewee la moo tax ma wax la ko <laughs> gis nga waajee leen luwe woon ba mu juddoo fekk xale bi ci kër gi ah. dafa woo jabar ji ni ko mais c'est pas possible xale bi di niroog sama waa kër kan la mm-hmm. ñu daal dee dem ba ca ba ca ndeyam won ndey ji présenté ko parce que boroom kër gi moom ça fait des années que ñëwul woon Sénégal. dëgg la ñu won ko ne ko kii di woy ndeyam. Mhm. pour te dire ndoy ah xëy na ndax ah ça na ndax am na fu ñu bokkee ñoom ñaar ci xamuñ ko waaye. man man man man bi <laughs> ngay dox ñu ne la da ngaa niroog diw fee. dëgg la man man daal bi may wax mooy. man bi may wax bi may wax mooy Eva. nga nga nga nga nekk ci biir kër gi am sa soxna ak doom muy niroog muy niroog jàllo bi ci koñ bi wala ah. borom butigu naar bi ah. ah man daal ñu ñu tëj brèche boobu <laughs> dégg naa sax boo boo boo ëmbee tey waaw soppoo kanamu Eva Tra gi boo ko gisee ci télé bi di zappé loolu laa la doon waaj wax ah dëgg la soo mu leen nga indi fa Eva Tra naa xamoon ne boo ëmbee kooku benn paramètre la boo ëmbee jéppi dëggantaan c'est sax sa doom mën na judd nuru ko il soo ëmbee nit tiital la li tax ñuy bañ boo tollee fenn fi ngay dugg ci yenn yi di dox yenn heure yi ah. mooy da ngay gis koo xamante ne dara moo koy tiital doom ji juddu nuroog loolu non mais c'est vrai hmm. donc nañuy nañuy nañu li ndooy baan doon wax démb hmm. nañu dellu siwaat ci cosaan hmm. xam ne ñun dañoo am suñu cosaan réew mi ñu dëkk dëkkee wuñ ko ñun doomu aadama yi rek dañ fee dëkk ak yeneeni mbindeef yoo xamante ne yàllaa leen bind te ña nga fa ñu nekkoon te la maam ya defoon ba mucc ci ñoom bu buñ ko defee mucc ci ñoom donc loolu nañ ko sóoraale bu baax a baax a baax jigéen daal su ëmbee day sut suturaal boppam day muur ay cëram mhm. day mallu day am heure yu mu dul dox waaye yow bëgg a ëmb fu ñu tëggee tànn biir nga wàlli fu ñu tëggee soirée nga dem lépp lu xew nga dem ci yow amul dara loo bàyyi mhm. lépp ngay dem loo romb lekk loo romb naan boole ceeg di sol yére yoo xam ne sa jumbaxañ ci biti ngelaw li di la dugg mhm. ngay def koo romb jox ko sa biir mu làmb nga naan man damaa tubaabe bu ma ëmbee du ma ko nëbb mais nañuy nëbbatu du wàññi dara. tey tey tey gis nga Eva loolu dinañu aussi déplor déplorer waat ñu déplorer waat manque wax dëgg yàlla structure. Mhm. yi nga xam ne xale yi danu fa danu fa war a dem nu leen di toppatoo. parce que loolu tam problème la ndooy baan ci bii dëkk. Mhm. Mhm. problème la bu baax foog ñu waxtaan ci. parce que démb suñu xarit bi fi teew. mi ngi ñuy xamal ne euh, CDFP yi xaw ma. ne boobu rek la ñu fi am. pour yóbbu fa xale yi nga xool Sénégal nu mu toll ñu ne le centre bu daabo moo fi nekk pour di mën a dalal xale yi nga xam ne dañu am handicap kooku je pense que ñun actuellement war nañu wees foofu war nañ ko wees bu baax may leen ma ma jël ki ci ligne bi ba noppi nu daal dee dellu si wat ci plateau bi dem dafa mel ni dem na ah, mais dafa mel ni dem na allo dajaloo loolu tam doy na waar. ndoy dajaloo dajaloo loo def parce que c'est ñi ko am ci ay ñi ko am parce que ñi am jabet ñi ngi am association. Mm-hmm. ñi am cancer ñi ngi am association. Mm-hmm. ñi am nangam am association. ba nit ñi di leen jàppale ñoom it dañ créer seen association am na association waaw na nañu yëngu nañ yëngu nañ yëngu yëngal mhm. dëkk bii dangay yëngu yëngal suñu xel dafay dem ci madame Sy Rajad waaw nu ngi koy nuyu xam naa du ñàkk dinañ ko fi dalal bu baax a baax voilà suñu defee loolu hmm. nit ñi dinañ leen dégg su ko defee nguur gi mën cee dugal loxoom bu hmm. baax a baax a hmm. baax pour mën leen a créer centre centre centre yu yu mel noonu parce que gis nga démb am na fu ñu laal maa wax ak ay kilifa démb tamit ñu wax ma ni ma loolu lu am la. Mm-hmm. jur doom ba pare am alal tax nga nga nga nga sa njaboot. Mm-hmm. am na ñu ciy dem bay sacrifier seeni jabar. Mm-hmm. am ñu ciy dem bay sacrifier ëmb bi ëmb bi sa soxna ëmb. dem ba sacrifier sa doom ji nga xam ne juddu na ba am nga sacrifier ko. ndax pour ami koppar. boobu tam loolu lu am la ci dëkk bi. ndax alal. Hmm? sacrifier sa doom pour am alal. sa doom ji âge ba mu yem fa lay yem rek noonu lay toll na mu nekkee liir noonu noonu lay lekkee liir du mën a dox du mën a wax néew ma ñëpp de c'est très rare loolu nag c'est très rare mhm. mais lu am la ci dëkk bi damay dégg souvent jigéen gi am doom nga dégg ma naan la euh, am dañuy ñëw fii sax ci ci ci buntu rajo bi souvent mhm. ñu naan la xale bi dañ koo weccoo man xam ma xam bi nu mu war a demee ma mami xam naa ni xam na cosaan man nag ci sama dégg-dégg mami mm-hmm. donte gëm nañu cosaan mm-hmm. man ci sama dégg-dégg bu jëkkaan mm-hmm. xam nga léegi la technologie avancée léegi la moyens yi gën a bare mais dañ daan ne la sama doom ji dañu ko wéccee xam nga xale bu juddoo ñëw ak malformation léegi saay boo sàgganee te mu nekk lii loolu doo ko teel a gis dëgg la doo ko teel a gis nga daal dee dem nag ba ca kanam kanam gi di gën a dessiné wu mhm. nga gis ne kii na nga bëggee woon mu dikk dikkew ko nga daajee ne dana ko weccew waaw parfois loolu dafay am waaw waaw de que c'est que mhm. am na ci parent yoo xam ne nag wax dëgg yàlla ah. vi dañoo desee vigilant mhm. ñu ci bari doom surtout xale xale da nga ko war a xool fépp côté yëpp xanaa xamoon ni ñi feebar ma ci xaw a jéem du as tuut li nga xam ne moom la kon di leen jàppale yàlla mais da ngay gis ñaata xale ñoo judd ak ñaari sexe. du jeex kooku tam am na. mais am na ñoo xam ne ay xale lañu man gis naa ñoo xam ne ay xale ni gis naa ñoo xam ne ay mag yi jëmma lañu. ñu ngi ak ñaari sexe. waaw gis naa ci koo xam ni turu góor la yor doon magum jëm su ma téyee du ma yëngu ñëw fii ànd ak yaayam. dëgg mu ne ma sama doom ji léegi léegi léegi lii. man ko lan mu ne ma dafa am ñaari sexe. te boobu ba tey ba muy. 20 mu ne ma mu ne ma. turu góor lañ ko jox soo jàkkaarloog moom nii da nga naan góor la mais su dindee da ngay gis weeni su si mee tubéy ji da ngay gis ñaari sexe yi lii oh. lii ma la kay maa teg sama bët man mi du benn fii nii koo xam ne mais gis naa ci ñoo xam ne tamit ay xale lañu ay xale yu ndaw mhm. suñ demee ba nga màgg ngay gis ngay gis nag ban ban moo ci dominé te loolu man pour man cànke cànkanteeg parents yi la. Oh, ba mu nekkee liir ci ci ajaratu dëgën chimère baabu. c'est ça la la ko gisee. wala ñooñu nag fii nii sooy taasoor am na ci ñoo xam ne chaque jour ñu ñëw fii ci rajo bi. Mm-hmm. fii te ndoy baan tegal foofu baaraam. Mm-hmm. ndax yu mel noonu soxna li Linguère. Mm-hmm. dañuy wax ne nanu ko ko nëbbal. attention dañuy nëbbutu mm-hmm. dañuy wax ne la nëbb ko bul ko wax mu jëm kaw léegi saay boo sàgganee ñu ne la diw a ci def nangam moo ci mm-hmm. dox ay jéego yu mm-hmm. yàlla bu yaay aussi nu nu avancé ci ci ci mel noonu yàlla bu yaay ji di wax wujjee nee nañu am na ñu naan feebar doo ko wax keneen keneen ne ma awa feebar danga koy siwal ndax mu bala ah mais mais tamit boo nëbbee sa jàngoro doo wér ndax mën naa am ki ngay nëbb sa jàngoro moo lay gasali reen ya lay faj di léeg-léeg nga jàppee nit dof fekk moo yor say reen yi la war a faj xam nga loolu biñ ko fi waxtaanee am na jamono ñu mosoon ko fi waxtaanee boobu ñu ngi woon fee ca suuf comme ni nga ko waxee yàlla ko yàlla xaare àjjana muy wax saan moom it ki mu ci yóbbu woon ba ñu opéré ko ba léegi xam na ban sexe la mais comme ni ko ndooy baan di waxee du fi jeex mm. am na fi xale jigéen yoo xam ne ñu ngi leen di laaj lu leen teree sëy mm-hmm. lu leen teree sëy lu ngeen di xaar ci parce que dem nañ ba màggaale ak loolu ñemewuñu summeeku ci kanamu góor ndax mënatuñu wone seen bopp seen bopp man mus naa ci gis koo xamante ne sama sœur la nekkaloon mais daf ko jaral mu bañ a sëyi. ki ci ligne bi. ci vois salaamaaleykum wa rahmatulah xeetu malformation la. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. na ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu baax. ça va alhamdulilah. alhamdulilah. voilà dama bëggoon participer ci émission yow rek la ñuy déglu ci sa émission Wareef. Mm, parce que vraiment seen thème bi man dama am benn doom bu autiste. Mhm. moom rek laa am comme doom. Euh, waaye vraiment c'est c'est c'est notre rayon de soleil. macha mhm. allah. vraiment parce que dañu nekk ay xale yoo xamante ne lool leen jox ci amour dañ la koy delloo. Mhm. loo ci waslu ak yàlla dina la ko wan. ñu ko gis te diñ ci gis sa sa avancement ak sa njëriñ ak lépp. te ku leen rejeté tamit diñ ko diñ ko gis. tôt tôt ou tard dama bëggoon juste ñaax parents yi juste parce que am na ci ñoo xamante bi ne seen autisme du feeñ boo leen gisee physiquement duñu am benn signe mhm. fu ñu taxaw dañ naan xale yi dañu reew parce que dañuy agité foo leen fekk ñu ngi tëb di dal ñu ngi dóor ñu ngi def ay affaire ñu ngi def ay manière ñu ngi mhm. jéem attirer attention nit ñi mhm. mais seen parents duñu am seetlu et puis euh, nit ñi dañ naan xale bi dafa réew kii kenn yaru ko kii kenn lii di ko dóor di ko réer alors que boobu ñu ngi souffrir. Mhm. ñu ngi am dara mais mënuñu ko exprimer parce que ñoom du ñëpp a mën a wax li nekk seen li leen leen li leen gaañ wala li nekk seen xol. donc il faut que parents yi surtout les mhm. gën a def attention ci ci ci loolu. Mhm. seetlu xale yi bu ñu gisee lu leen jaaxal. ñu jéem a dem ci médecin yi parce que mën nañu <coughs> nekk. xale bu normal physiquement du am benn signe. Mhm. et que pourtant intérieurement que dafa nekk autiste wala mu dem école du mën a suivre. ci am ay retard. ñu naan xel bee neexul wala mhm. lii wala lii. Mhm. et mu dem nag ba mag nag mu nekk cas bu xaw a difficile. à à prendre en charge. man daal vraiment loolu loolu laa doon bëgg a participer. <laughs> et euh, et que kontaan naa vraiment si seen thème bi parce que voilà on n'en parle pas trop souvent. c'est vrai. Euh, et que, voilà, ils sont un peu des enfants laissés à en rade il faut ñu dugal leen jéem leen dugal ci société yi accepté leen ci école yi man dama sonnoon balaa sama doom di am école fu ne dugg naa fa li mu dem ferlu un an ñu ne ma mënuñu ko téye ban ban école la nekk actuellement comment ban école la nekk actuellement actuellement mu ngi ren Fabiola ren Fabiola waaw école am la il est content d'y être mhm. maa ngi nuyu de passage sa directrice qui mhm. est une femme très très brave mhm. dimbale xale yi dimbale parents yi jàppale leen vraiment képp ku sa doom am handicap nga dem ci école boobu dina la dalal dina la xelal vraiment yow le matin ci es content parce que sa doom day kontaan dem jàngi ñu ngi nekk ak ay xale yu normal parce que ñoom dañuy mixé classe du duñ leen ber mhm. duñ leen ber bu xale bi commencé évoluer dañ koy jël dugal ko ci yeneen classe yi ñuy évoluer ak yeneen xale yi du sax am benn benn différence ak yeneen xale yi mhm. dans la prise en charge ñuy toppatoowe xale yi ñëpp benn lañ ci école bi vraiment ren Fabio laa jóg du ma def publicité mais. mais fa la nekk foofu la nekk. mais mhm. Mhm. quand même euh, c'est c'est une dame à féliciter. très bien. donc euh, kontaan naa mosuma woote télé mosuma <laughs> woote rajo. mais mais sa rayon de soleil moo tax nga woote comme tu a tu l'as si bien dit <laughs> voilà dañu doon ñoo xamante bi ne man j'étais quelqu'un très professionnel bëgg liggéey jàng bac plus cinq six sept mm. mais bi ma amee façon doom bi dama jël yépp def ko entre parenthèses pour un moment déjà mm-hmm. pour xool lu may organiser wu jël fu àdduna yépp tegee ko côté très bien nekk ci moom ba gis yoon ba moom tamit mu gis yoon ñu soog a xool leneen li ñu def defe naa loolu tamit des fois dina baax mm-hmm. nga bañ ko neen bon mi ngi fi tànk mi ngi dund mi ngi dund yeggali sa vie. Mhm. jël leen daal boole leen ci sa bopp ba nga xamante bi ne euh, yow au moins nga def ci liñ ci war a def nga wax lu ci ak bu baax a a mhm. mhm. et puis di leen di ñaax tamit entourage parce que du parent que c'est parent yi tamit dañuy sonn dafa métti. quoi qu'on puisse dire dafa metti nekk xëy suba ba ngoon jot di jàngal benn xale. loo xamante bi ne ay moromam dépassé nañ ko yàgg na. mais entourage bi tam il faut ñu jàpp ci. Mm-hmm. maam yi tante yi oncle voisin yi ñëpp daal. ñëpp mm-hmm. jàpp ci pour xam ne ñii bu la yàlla bu leen yàlla dugalee sa entourage. Mm-hmm. c'est parce que am na lum la saf. c'est vrai. ay alalu yàlla lañ mhm. te ku ci def dara di nga ko gis incha allah. macha allah loolu rek daal la muy wax sama mbokk jigéen ñi ak góor ñi et ndoy baan tamit wax na lu am importance. Mhm. ndax li ñu naan léegi nag yenn famille yi dañ ci am. Mhm. mais duñ la ko wax. dëgg la yow boo ñëwee andi doom ju mel noonu ñu gaafal la. te boo recherché bu baax nga gis que ne mos nañ ci am wala. yàgg nañ ko am. mais tout le temps ça vient de la femme. Mhm. yaa am problème yaa ëmboon génn. gaa yooyu sax dañu li war a moytu la mais plein plein plein de choses yoo xamante bi ne bon du ma ne buñ la ko waxoon doo ci dugg <laughs> wala dara. mais mhm. au moins. <laughs> di nga di nga am benn début. ñu réconforté la à ton mhm. problème. na ne du yow mën la conforter pour que. dem de l'avant et puis def sa prise en charge comme ni mu merci beaucoup merci. merci ñun ñoo lay remercier. Mm-hmm. ndeysaan c'est encourageant et puis dana encouragé ñeneen ñi xam nga boo demee mami ci dëkk tubaab yi ñoom mhm. kaa boo gis rek mhm. da ngay gis ndeysaan jigéen ñi moo xam góor ni la mhm. tey ñi nga xam ne dañuy drogué wu dañuy dem gis seen ay moroomu drogué nu toog di échanger ñi nga xam ne dañu am problème ci seen foyer dañuy dem échanger ak ñeneen ñoo xam ne dañu am problème ci seen foyer mais ñun itam il est temps que mami ñu xoolaat suñu jikko yi ah. parce que bu dee fii la awa day ñëw wala kumba ñëw gis ci mami li ngeen rek Khady Ngoné ak mm-hmm. benn Eva Tra mm-hmm. daa dee wax bi euh, waxam bu pare lu ngeen bokk bokk problème boo mm-hmm. paree bu sàgganee ba samay nekk ca mbedd ma sa bos du nekk ci mbedd mi et finalement nit du xam fan lay dem pour waxtaan mais tubaab yi lii lañ ñu rawee ce qu'elle a fait comme ça joxe exemple bu palpable ne moom doomam nangam ak nangam daf ko dal mais elle conseille aux autres ñu def nangam ak nangam c'est important ma ni lier bëggoon naa point yu mel noonu mhm. ñu ciy teg suñu loxo mhm. ñun jigéen ñi lu ñu mën mooy di ci xasante mhm. tey bu ma dee sa wujju li may njëkk def boo juree doom bu mel noonu du ma ne nigal ma jaamu yàlla gunge ci soxna lingeer wala soxna jaana damay daal di ne teqet di re ak boole ko di la xas am na fi xam nga danga da nga ci indi ay yu am solo nga teg loxo balaa dikk ci yu am solo nga jël bi <laughs> dellu si wa rahmatulah nga dellu si waat asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëriñ bu baax bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar. allo. sëriñ bu baax bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar. waaw ñu ngi lay fay ñu ngi lay dalal ci sa émission wareef. sëriñ bi yow rek lañuy déglu dangay bàyyi tele bi dégloo ci téléphone bi. Mhm. est ce que jaawalewul téléphone bi waaw yaa ngi doon dégg nee nga indi naa lu am solo waaye xam naa de fu am solo nga doon dem non indi nga lu am solo ndax te xam nga ah. euh, li nga wax li Yoro Ndiaye wayoon kan laa war a wóolu est da ngay wax ak nit mu dem di la weer te la nga wax bu moom day jël kilo liibar tegal la ko ca dem yóbbul la wax jooja ah. nga ñëw ci nit ngeen bokk même problème mhm. moom mu euh, euh, tuurum ndox ci lalam mm. jëlub sëram muur ci ba mu jekk muy wër ku def leneen cib lalam te fekk ne moom xamul ne la mu yor moo gën a garaaw téeméeri junni yoon <coughs> ndax moom yor na koy nettalikat yor na xol bu bon yor na lu muy xool ci nit te ma nga cee jëlee bàkkaar dafa am kilifa gu baax gu ne woon comme réew mi loo dox dox loo wax a wax doo joxe si lëf te deesu la joxu si lëf te ngaa jekki muy la gën dellu si loo dox dox loo wax a wax doo joxes lëf dee su la joxes lëf kon tee ngaa jekki muy la gën comme yow foo mën di demit ay wax doo nga fa yóbbu te waxee day tasum réew mhm. doo fa joxe dara dee su la fa jox dara mhm. tee ngaa jekki fa nga dëkk muy la gën te yow mhm. doo ci am xasi nit ñi doo ci am bàkkaaru yàlla mais dañu dem ba nit ñi léegi loolu lañ mënatul comme li nga wax tamit nga boo amee wujj mu jàppale la ca jàppale wujj ba kay day am ndam danga koo tëggal danga koo tëggal kaset bu bees di ndax day tàmbali comme gis ne la laa kañ ma doon jëndee yàlla boo nekkum ñaareel nag wala nga nekkum aaw <laughs> sama aaw ba ca kër ga ñu ne ah mu ne yàlla na ma yàlla musal ci moom ah. ay gaaf daf ma doon liggéey waaw di ma jiiñ lu bon yàlla jox na ko doom di ko doy sëkk nag bu ngeen gisee la mu jur ma nga jur et day wax ci xale bi wax bu ñaaw boo xamante ne du fàttaleeku ko ne nit ki mën ngay wax ci moom ba yàlla yëkkati la nekk ci moom lu ko gën a metti teg la ko yow pour bëgg a xool ba xam nooy ah, doxee wala ngay wër naan sama ñaareel dañ ma koo takkal pour ne lii jabari faj mer la woon xamoon na ne du fi jur doom ji baax il faut kon mu jur lii di seen famille dañ leen di daw dañ leen di lii wala nga tuumaal ko tuuma gu ñaaw gu dul set ci deram ba illaa yow mi diini te yow doo fàttaleeku ne jigéen nga comme moom mhm. te biiru day jigéen day magasin wu yàlla la mu cay denc moom rek xam nu mu ko cay dencee ndax li nekk ci biir juróom-ñeenti weer yàlla. Mm. échographie yi ñuy won sa xëy na tubaab yee dox léegi rek. Mm. waaye bu njëkk suñu maam yi dañ daan ëmb ba xëy wasin. du ñu ko xam ñu ci teg bët. dëgg la du ñu xam ndax góor la du ñu xam ndax jigéen la. te bu mm. dikkee day mel na mu war a mel. kon yow nga xam ne li ci sa biir xamoo ko bay xam li ci biiru keneen. jëlaatal ki ci li ligne bi salaamaaleykum wa rahmatullah allo. Ndiaye ni dugg nañ ci liggéey buñ fi baree rek nii la yëfi di doy baan mami indi na moom itam wax dëgg yàlla lu am solo des dafa nga da ngay gis ni li coow li di bari bari dafa am jigéen ñoo xam ni bugguñu doom mhm. am nañu doom mhm. amati doom mais bugguñu doom mhm. am nañu doom amati doom mais bay ba dara jotul sax bugguñu amuñu nekk yaay du lu ay yaay lañ bëgg nañu nekk yaay mais dañoo dañoo buggul maanaam du ñu am na ñu may ñu may seetaan xeex dinañ comprendre li ma bëgg wax. Ah. mi ngi mel ma jur mami pare mais mami feebar bañ feebar man daal sama yoon maanaam jur bëgguñu doom. Mm. may ma may ma ma jël ki ci ligne bi salaamaaleykum. maaleykum salaam. ajaratu bisimilah yaa ngi ci émission Wareef. Eva maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay lay fay lu bare bëri. li ma bëggoon a woon wax nag Ndoye Bane ku ma ko dama ko sopp trop nag. ndeysaan ah, waaw kon ma bàyyi la sopp nga xale bu doy waar. kan la sopp man. Ndoye Bane waaw. aha maa ngi ak sa numéro ça fait deux ans mais musuma la woo musuma woote télé la première fois. mais li ngeen di wax dafa ma touché parce que dama am cas bu mel noonu. mais Ndoye Bane dama bëgg nga xam ne nekk en général xale yi di am yenn feebar yi. Mhm. du lenn lu dul goro yi ndaxte da ngay sëy nekk ci biir kër gu mag. yaa ngi may dégg. Mhm. boo sëyee duñ la may jàmm duñ la may salaam nga nekk en état de grossesse stress boobu rek handicap la ci xale bi. Mhm. jooy bi ngay jooy rek handicap la ci xale bi. Mhm. man ça a été mon cas ça a été mon ma metti aw ma woon ku may soutenir dama jooy bëccëg jooy guddi dama jooy ba deseetuma rongoñ. donc goro yi nañu bàyyi xale yi bu ñu ñëwee sëy si ñu leen di méttit yenn saa yi dañ lay reen di la suuf pour nga bañ fa jur doom parce que dañuy nekk boo fa juree doom xale boobu noonu bu màggee papa war ko toppatoo lu ñu leen di jox dafay wàññeeku mm-hmm. ndax ñu ngi calculer nekk 5000 francs bi ngay jëndee couche mu ñoom mun nañ leen ko jox ñu dem reena la suufal pour nga génn foofu neexul man nag franchement mënuma wax sama tur ndax nu mu demee la oh. mais ma am lu ma métti man nag sama doom bi may remarqué feebaram il avait trois mois dama ko teg ci yuppalaa bi ma ko tegee ci yuppalaa ma gis ne que tànk bi dafa dëng ma jubbante ko trois fois de suite ñu ne ma non waaw lii du dara yow da bëgg hôpital bi ma demee ci nañ ma ne ma ko bi dafa am pied boobu pied boobu boobu nag ma koy faj di ko faj mu jaral ma ma démissionné sama liggéey waaye rëccuwuma ko ba xale bi tey macha allah mu ngi dox mi ngi wax am na benn femme bu dugg léegi nee na doomam mi ngi ren Fabiola man sama doom jàngee na foofu jàngee na foofu y a des écoles spécialisées pour ça hein mm-hmm. y a des écoles spécialisées xëy na ñu bëri dañ koo xamul petit loué ngi fii yeneen ak yeneen mhm. donc ñu ngi ñuy jàppale parce que ces enfants là c'est des personne comme nous ay nit nañu comme ñu na Eva mu raw le doo ay nit nañu mais dañ leen di kii dañ leen nëbb ko man nag sama bés musuma ko nëbb dama koy solal bu mu rafet di génn ak moom utal ko siège di ko dugal sama bi oto mhm. bi ma koy fayal école ñu ne ma kii dafa dof jarul fayal école Fabiola muy yendu foofu toute la journée. Hmm. ñu ne damay yàq xaalis ñu bañ ma jox may liggéey di fayal sama doom ba xale bi tam tey dem nekk ba mag. di def CP tey macha allah maa ngi sant yàlla. xeeb bi doole yaa ngi dégg. xale boobu tey ñu bëgg a wax ñoo ko moom waaye juum ñu yàllaa ko moom ak man nii. Mhm. waaw c'est un de cœur nag ça fait mal mais xam leen nekk nag handicap yu bëri nag. famille yi lay jógee. yàlla mi ngi def mais nit ñi ñoo am quatre-vingt-dix-neuf pour cent ah. mhm. ñoom ñoo ko am parce que ñoom ñooy tax mayu ñu jàmm mayu ñu salaam. ñoom ñooy def femme bi nekk fa di ju imaginer nga nekk en état lu tax naar yi raw ñu parce que boo nekkee en état déjà dañ lay suturaal di la neexal mais ñun c'est pas le ngay yëndoo di jooy mu desee la deux mois nga war a wëcc ñu jox la 32 cahier 32 pages ñu nga war a teral yàq boobu pour la te sa doom bu feebaree doo gis ku lay dëndal benn couche wala ku lay dëndal benn kii garab dañu mhm. xoolaat situation bi donc lu ci ëpp nag ça vient des familles famille ñoo te xale handicapé yooyu di judd mhm. xëy na am na lu mënul ñàkk deret bu jege wala leneen ak leneen mais quatre-vingt-dix-neuf pour cent je mettrai ma main au feu nekk ci famille lay génn te femme yaa ngi foofu di sëy mhm. di souffrir ñu ngi jooy te loolu ñëpp xam nañ ne que les gynécologues savent que c'est pas bon pour une femme enceinte loolu nag la amoon lu may wax Ndoye Bane xam naa dinaa la woowaat am naa courage wala tey ça fait deux ans bi ma amee sa numéro dinaa la woo. merci beaucoup Eva ça m'a fait révolter Mami ça m'a fait révolter dama vivre loolu mais man maa ngi sant yàlla sama doom mi ngi dox mais am na ñu bëri imaginer ku amul moyen wallaahi imagine ku amul moyen yàlla mayul dafa dénkaane mhm. donc buñ leen nëbb man dama amoon benn femme boo xamante ne que ñoo doon suivre andoo suñu mais dafa dem ba découragé bu gisee léegi sama doom day jooy parce que bosom dafa nekk légume waaye kaddu légume yàlla moo xam ku baax ak ku bon mhm. man maa ngi sant yàlla sama doom nag mi ngi wax des na tuuti ba pare ay orthophoniste amul Sénégal. amul Sénégal y en a que deux. Mhm. donc c' des trucs yoo xamante ne comme genre centre Talibou Dabo yooyu pour tout le Sénégal benn centre moo fi am. ay orthophoniste. c'est dommage pour affaire yi wa pour xale bi mën a wax. Mhm. lu tol ni Sénégal mu am ci ñaar mais pourquoi. man nag je suis hyper révoltée wala Ndoye Bane dinaa la woo merci jërëjëf ngeen baal mais mais dossier bi nañ ko dénkaale Ndoye Bane mu wax ci mu àggali ko ca rajo ba d'ailleurs c'est ce que je vais faire mm. <laughs> li ngeen mm. euh, sama yaram bi dafa daw bi muy wax dafa daw bi muy wax gis nga mm-hmm. dafa am tamit mm-hmm. moo tax wallaay Eva am na fu mu nawee tubaab mm-hmm. axan ah, am na fu may nawee naar képp koo xam ne ci culture am am na lu rafet bu la yóbboo nga naw ko ca parce que gis nga wax na benn yëf bu yomb bu mu wax yomb na yombul mu romb mm-hmm. mm-hmm. dangay gis une femme en état juróom bu fekkee grossesse bi du juróom-ñeenti weer la juróom-ñeenti weer yi daf koy jooy ndoy baan mm-hmm. juróom-ñeenti weer yi daf koy am naqar kooku bu juddoo bu bu juree doom mhm. yàlla dogal ci doom bi yenn yi moom dafay fàtte sunu borom mhm. dafay jël mbir mi mhm. ne c'est la famille parce que ba ngeen ko waree gunge gungewu leen ko te grossesse dafa metti da ngay nekk ci kër di jël ay nga ëmb au que sa peccor ga yi nu baal la sax ay bi teggil la ko du la baal dara mais dañuy jégganteeg yow. ne moom doo nga mosu fi ëmb barki de boo njaay laa ëmb euh, maa fi doon def naa nga il faut que ñu rafetalaat suñu jukko yi ñu cultiver lu baax c'est important. yow nag yow ndeke sa baax gi ndekete yoo te dafa laandi nii li ñuy wax baax gi ci lan ci lan li yow ay jéggal nga yow ay ay. waaw ñu li mu wax nee na. Uh-huh. yaa ngi nekk en état nga dem ba jooy 7 mois yi déglul de te dafa uh-huh. dal jekk yi bare. Uh-huh. jooy 7 mois yi huitième mois ba. yow ci sa bopp yaa ngi rus yaa ngi laajte ñan nga war a teral. mais xam nga le bébé n'est pas encore là. bi nga war a wasin war a toppatoo sa yaram. li ngeen loolu yëpp defoo ko. ñu traumatiser la il faut faire stop. mais démb bi ñuy ubbi xam nga wax naa la loolu. ah c'est la am na ci ñoo xam ne la leen dal est-ce que jëkkër ak ñee ñu dëkkal teguñu leen ndax yow amoo jàmm ci biir néeg bi. Ah, amoo jàmm ci biti. xanaa xamoon ne ëmb di jooy rek dafa baaxul mag ñi dañ koy tare. Ah. parce que ram ko ñooy ngay jooy warul war di ci sa biir yi bare na de. non du xam nga xam nga <laughs> femme bi def na la. Ah, dafa jooy set mois. 2 mois yi ci des ñu indil ko kayewu 32 pages moom di ko waajalal njaag nangul te boo xamante ne. lay ñëw mën naa dikk yóbbu bakkanam ñoom calculer wuñu loolu calculer wuñu coono bi mu sonn xooluñu ndax yaa ngi lekk xooluñu ndax yaa ngi naan xooluñu am na nee naa la fi démb nu ku ëmb di nelawee mm-hmm. noo koy yeewee sax mag ñi nee nañ loolu am na lu mën a yàq ci li mu ëmb dëgg la jóg noo koy tiitalee di def yenn bruit ci kër gi bruit maa tey suñu kër la ñu nekk mais xam nga tamit ki lay yéene dee loo yooyu mu xeeb dëgg la jóg yaa ngi wax nag lu am solo nee nga ngaay nga nekk ak sa wujj wala sa wujj peccer goo mu ah. baal ay gi ne da ngaa ëmb waaw <laughs> fii la Ndakaaru boo demee ba septième mois la yenn la Ndakaaru donte exercice physique nag mhm. baax na ci ci jigéen wérul mhm. mais mu am yoo xam ne nañ la ko euh, teggil pour mhm. préparer la à autre chose waaw xam nga fii Ndakaaru ah am na fii marché ñoo xam ne dañuy dem une semaine. Mhm. am na ñuy dem pour un mois. Mhm. am na dëkk yoo xam ne charrette ngay dugg. Mhm. chaque jour pour xëy dem marché. am na dëkk yoo xam ne sa goroog sa njëkke da ciy boole woo waa dëkk ba ne leen ku amul fóot indil ko ndax daa ëmb. ku am paase indil ko ndax dafa ëmb. ku am looy dëbblu indil ko ndax dafa ëmb. ñu ne loolu yëpp yaa ko war a def. <laughs> nga boole ci nag yow ak naqar ak sa dara matul. yàlla boo ci tasee nag ak jëkkër ju bokk association ma lànk tekkee ma ñorut lekk waaw waaw liggéey dee ay nelawkaay li ngeen dafa am biig lu may wax du thème bi waaye di wax ñun dañu fee traité lan divorce. waaw dañoo juum. Mhm. laaj ma lu nu waroon a traité. Mhm. mariage union la ñu waroon a traité ndax sëy yi feebar mhm. danoo bare mhm. jigéen yi nekk ci kër te seen xol yi neexul danoo bare ndoy baan loolu nitu dëgg nga nag lekk mhm. saay jigéen yee ngi bëgg a dee suñu paree dañuy dem ci tëb nañu loolu dem ca divorce mais waruñu woon defee noonu mais est-ce que xam nga dara nanu dem nanu dem à la régie li feeñ ci sëy ba tas ko nuyoo woon na ca ngoro ga kenn da koo fayut yàkkamteeg gaawtu bu ñu juree doom rëccu rek lay tudd. ah yàkkamteeg gaawtu ñoom seen doom rëccu rek. rëccu rek la mën a jamais beneen tur bu ñu koy tuddee. <laughs> kon xam naa ne soxna yee ngi reetaan nanu dem mbokk yi à la régie xool benn page publicitaire su ko defee ñu ñëwaat ci yéen waaye nu ngi leen di encouragé massa leen coono ci xew ci biir kër yi ñun fii la nu toog ñett lañu waaye lépp la ñu xam lu nu mën a wax ak lu nu mënta wax massa leen coono faaw yàlla bés dana ñëw mu fay incha allah nañ leen dem à la jërë ngeen jëf mbokk yi ñu dellu si ci seen émission wareef ñu leen di fàttali rek thème bi nu ngee waxtaanee xale yi nga xam ne dañoo juddu ànd ak malformation yor leen nag doon lu jafe faw sa ngëm yàlla mot lool macha allah pour que nga yor leen bañ a xàddi waaye bu nu fàttee wax nañ ko te duñ ci tàyyi lu waaye di def rek yàlla lay fay te macha allah kenn mësuta def lu baax ba am ca lu bon mukk moo xam situation bu mu mënti doon kon boog soxna ma Linguère waaw nu dikkaat xam naa ne li ñuy wax ci ci coulisses yi <laughs> mënuñu koo baaxee njaayeen c'est maa ngi lay wax dara de. ah li xew ci réew mi lépp de ku ko wax da ngay wax ba yàgg mat la orthopédique ni pal ci sa gémmiñ nga jaaxaan di nelaw. <laughs> dafa daal di génn rek daal di. sa gémmiñ lay génn nga defee noonu. allahu akbar. di nelaw nag doo xam kañ ngay yeewu. sànq maa nekk naan ah, ndooy baal ma bala ngay dem. am na ku ma doon tooñ démb xaw ma barki démb. nii la ma ne ko Serigne Bamba seede na ne bis bu ndooy baan waxoon li mu xew ci li xew ci réew mi li mu fi xam. àdduna tukki ma ne ko bàyyi leen ñu rek ñu nekk ay bàmmeel moo gën ci ñun ñun nañ tëdd di nelaw rek. déggoo ma ni la c' est pas le thème wax naa ko léegi ngeen di xalangu ndaw sa nee na am na or am na jaman mhm. rafet na xam na ko. <laughs> Mhm. waaye newul ca jàmm ndax jëkkëram da koy présenté ca dëkk ba. Mhm. waaye bu ñëwee ci biir kër gi du ko tudd du ko taal. waaw mais moom nag dafa xamul fonction moom jabaru meuble la. Ah. dafa am jabaru meuble. dafa am jabar joo xam ne dafa am lu ñu koy nëbbee. comme staffeur yi ni ñuy def bu ñu ñëwee sa kaw to towa mu yàqu ñu tafal la ceeb kii. loolu tegal loxo danaa ah. la yóbbu ci boobu tem. non du ma la wax kay la kay toog dina jukki boobu tem <laughs> jël nanu jël ki ci ligne bi ngeen baal nu mbokk yi salaamaaleykum. maaleykum salaam allo. ajaratu bismilla yaa ngi ci émission. wala ça va Eva Tra. naa. ça la. maa la raw foofu te maa ngi lay gis. yaa ngi sama xol euh, sànq da nga wax lu am solo dama yàgg ci ligne bi. ndeysaan ñu ngi jéggaloo. maa ngi wootee campement Ngekoox. waaw man Eva da wax ni ku ëmb ëmb neuf mois ak ak ay jooy mm-hmm. waaw man bi ma ëmbee sama doom bu mujj bii dama ko avec un mois et demi de grossesse parce que jigéen boo amee doom amaat doom da ngay xam ni boo ëmbee di nga ko xam mm-hmm. gis nga bi ma ëmbee deux mois mm. damay jooy ba am doom mm. bi ma amee doom maa ngi nekk sama biir néegu sëy de mm. bi ma amee doom noonu. Mhm. sama sama ci la ma sama goro toroxal ak samay njëkke wóor na salaati faatixa loo wax di nga ko wax ci biir suuf. jotoo ma ak sama jëkkër dara ñu koy tas sama sëy fase ma ke sama jëkkër nekku fa. sama ñëw jël ma yóbbu ma bi ma amee doom sama goro ci digg dëkk bi toroxal ma ba ma mel ni tott sama doom jooju naqar laa ko ëmbee naqar laa ko nampe nampale. ba xale bi fi mu toll nii war naa am 4 ans. mbaa xale bi fi mu toll nii amul malformation de mais dafa naqari deret xale bi day jooy guddi day jooy bëccëg. c'est ah. xaw ma lu nekk ak moom day jooy suba ngoon guddi bëccëg li ma lay wax ni yàlla xam na ko. billaahi. Hmm. li ngeen di wax yëpp dëgg la man maa ngeen di ñaanal di ngeen di wax seen itam dama ci gis sama bopp fi ma toog di liggéey. Hmm. wóor na yàlla day mel ni man man ngeen di wax. wallaahi. yàlla na leen yàlla defal jàmm. amiin waaye defal leen ko yëpp yow Ndoye Bane nga nekk ci dëkk bi Macky Sall daf la war a jox poste ci dëkk bi parce que li ngay def ministre yi defuñu ko. léegi allo police amul allo Ndoye Bane moo am. <laughs> allo Ndoye Bane moo am. man xam naa loolu yàlla def na ko. wallaahi mami li ngeen di def ci dëkk bi ñëpp xam nañ ko. jërëjëf. waaw yàlla na leen yàlla fay. amiin waay. waaw yàlla na la oh, oh, gudd fan. amiin amiin. gis nga gis nga moo tax ndeysaan boo yàggee ci àdduna rek. Mm-hmm. àdduna daf lay former. dëgg la dafay wuuteeg la nga jàng école. Mm-hmm, dañu mm-hmm. koy wax ne école daf lay instruire waaye àdduna. Mm-hmm. formation dëgg ci àdduna nga koy amee. xam nga boo nekkee ay doomu aadama ñu bañal la sa sa sa bien-être. dafay baax nga këfal ko sa bopp. dëgg la ndax diggante nga ëmb bay wasin. ah la ca xaj yépp bu ci nit bàyyee xel dana tal boppam lu dul tal keneen. mais tamit xam nga xam nga xam nga Eva. Hmm. damay dellu siwaat ci li ma lay tooñee chaque jour loo gis rek tolluwaay la. dëgg la dëgg la. xam nga gis nga liy fatt xel. waaw du fa bàyyi ay bët. dëgg la dafa am nit ki fu muy toll il faut que mu am ndimbalu yàlla wala famille bu bu taxaw sinon métit dina la rey. tumuranke dina la rey ndax xam nga góor gi nga xamante ne dalaa woon carrément ne man bëgguma doom damaa takk jabar mais lu ànd ak i doomam moom almet dong laa cay jënd li ci des lépp ñoruma bul fi jur bul fi wasin yàlla dogal nga ëmb mu di la bundu xataal ci biir kër gi wala mu abandonné la dem wàcc la am na ñoo xamante ne jour bu seen jëkkër xamee ne dañoo ëmb keroog la seen say tas ak ay dëgg léegi nag kooku noonu métit boobu fan la koy jëmee bu tasul itam di nga nekk ci coono boo ma sa non nga dama laa nga dem ak sa ëmb boobu sax moo tax ne ndax yow ñëpp dañuy xam ne dañ laa wàcc nga dem mais ñu bàyyi la ci biir kër gi nga nekk ak tumuranke boobu te kenn xamul doo gis ki la war a wéttali su guddee su oto ne woon wéyaay yooyu yow doo gis ku la yóbbu doo gis ku la jàppale ci dara boo daan woon doo gis ku la yëkkati mhm. boo la ceeg ñuy di la teg ay métit yoo xam ne toog ci sa kanam di wuyu beneen jigéen boo xam ne wóor na la ne takk ko téléphone yàlla nga gudd fan di envoyé message <laughs> léeg-léeg mu génne la ma jënd yàlla nga gudd fan waaye amin waay <laughs> léeg-léeg mu génne la ma jëndali la garab jànd rok <laughs> subaana wa nga toog naan sama comprimé bi kañ lay ñëw wooy fekk ko xam nga dafa am lu may wax ma ngay cap langal laaj ma lu may wax nee naa yàlla nu yàlla musal ci jëkkër buy ngoro feneen laaj ma li tax <laughs> loo togg du neex déedéet loo rafet mu gis sa ñaawaay loo baax mu gis sa bonaay ay waay yàlla nu yàlla sutural waay jigéen ñee ngi wax rek ñee war a am xel yéen gis nga jigéen dëggantaan bu ameem xel <coughs> waaw sa jëkkër bu soog amub seet da ko koy waccal <laughs> ak sa jëkkër bu nekkee tollee ci ndoxaan gu bees nga wàcc ko ca da ngay am ful la ju toll ne yow yaa naan jàkk nag moment boobu ngay toppatoo sa bopp maa la ko wax mais gis nga lu bees moom euh, ci góor ñi lu bees neex na ci ñoom ba mu des bàmmeel bàmmeel doom benn rek laa waaw bu yéen a ngi dégg déglu ma am na beneen soxna ñu ngi koy nuyu man sax sama xel dafay demaale ci pendolo ca Italie kooku suñu xarit la nee na mi ngi nuy suivre mhm. waaye am na beneen soxna nee Eva Mm. vous avez parfaitement raison maa ngi nuyu ma mami Linguère te di ko sof ndoy baan ne ko effectivement allo ndoy baan ma gënal allo police oh, waaye nee na dafa jooy juróom-ñeenti weer te bi ah. doomam juddoo wax dëgg yàlla doomam dafa ñëw ak handicap nee na moom loolu la ko gisee loolu noonu la ko gisee parce que xolam ni mu jeexee ca ëmbam bi mu ah. bëgguñu raconter nee na les faits mhm. mais wax dëgg yàlla doomam dafa xam nga loolu mënoo ko dindi ci boppam yéen ngi sànni waxtu bi dal eh, dab dab na doo leen nangu ma wax waaye waxtu bi ngeen sànni ñu ne nga abrégé yow waaw waaw ñu ne ndoy baax ngeen wax démocratie démocratie amu fi plateau baa ngi nii amul démocratie mais ku soj du fi wax ni boo dee jigéen ñi nga wax boo ngeen de mais tamit waa jigéen ñi. Mm. buy sëy na moytu lii. parce que soo ko dee def mën ngaa jur. loo xamul loo xamul dëgg mm-hmm. nga am jëkkër. mu mm. ngeen séq dara nga wan ci lor. Mm-hmm. ba pare nga am far. demaat ca far farwa mu lay séq ak ngay séq ak moom loolu. subhanallah nga am ba pare di séq ak beneen góor bu dul sa jëkkër. boobu ñun bëgg lool ko sax ah, nag loolu nag da xam nga da ngeen a sànni xeer góor ñi. lool na am na ay jigéen ñu fi ne ñoo xam ne dañuy def loolu. waaw te soo defee loolu. Eh. maara day taali. nag philosophie am nee na. waaw ñu baal la say jaamu yàlla la. Mhm. waaye boo demee daal ba xam ni. yow da ngaa am jëkkër bëgg ci teg leneen ak leneen ak leneen ak leneen. waaw ah. ñaanal ña la woo woon. Mhm. ña la dajale woon kilifa ya leen maye woon. Mhm. nga daal di retiré wu ca sëy bi dëgg la ndax ëllëg itam liñ lay waxal dafay bare. nga jur nga jur doom nga jur nga jur doom jur doom bi lox loxo yi dina roog loxo yi mbër. Eh. tànk yi di niroog tànki karatéka eh. kanam gii niroog kanami journaliste kanamu kanamu kii kanamu yooyu xam nga loolu xam nga loolu eh, woo eh, am jëkkër pare am juróomi far teg ci waaw waaw kon baal ma <laughs> tàggoo di sant am maa ngi la doon xanaa am na jigéen ñoo xam ni amuñu amour ci doom dañu am doom mais duñu ah, voilà amuñu amour ci doom mhm. doom bu dara jotul sax waxtama la ak doom bu dara jot mhm. donc nañuy gën di bëgg bëgg seen doom yi ak bu la ci yàlla mënti jox mhm. laago naam laagul formation ci yow la daggee xam nga doom dafa jigéen dafa yàlla da ko wékk ay responsabilité yu rëy rëy ci moom la doom ji daggee génn ñëw ci àdduna donc sa takkaneer la ak lu bu la boo ci ti jot na la ci na nga ci góorgóorlu baax may jégalu tey moom damaa xaw a uh, soj mm-hmm. ñoom mameek Eva ñoom wàll ak Mimi uh, Mimi Traoré rek ñoom seen ñoom wàll soj mi mm-hmm. ma leen di tàggu fii di leen jox dox dox daje ba subaak jàmm incha allah rek waaw di di leen béggee bu baax waaye ginnaaw sot ngeen góor ñi mhm. maa ngi leen xaar ba tem ba rek bañ yegg ñu ngi lay xaar noom am na tem bu ma fii ñëw indi waaw bañ soxna yi di ngeen ñëw tëb ñëw biis ñu fekk ñu fii dem naqar li naan doom kaasi gi jotaay teraanga dana leen dal soxna li ngeen tàggatoo waaw xanaa damay damay damay wax la sama sëriñ bu baax ba Cheikh Abdou Lahad Mbacké waxoon rek nee na woon diggante jàpp ak bàyyi loo fa séendu Abdou man damay jàpp rek wala ma bàyyi nit daal dafay jàpp te gëm la mu nekkee mhm. xam ne na ku dul may sa bopp lu la yàlla may jëlal dëgg waaye nañu xamante ne tamit tuñum gileem gudd lang na waaye waddul mhm. nit ki li nga am da nga koy fonk balaa keneen di ñëw di la ko fonk fonkle mhm. man su ma ñëwee fekk la nga jël sa la nga moom teg ko ca tuurukaay ndox ba dama la koy jàllaleel ba ca feneen te noonu la nit ñi mel yow li nga am yaa koy bëgg te loo bëgg mu jariñ la nañ ci jàppaat baax Abim Ndiaye ma génnee fii ngeen gis nii Abim Ndiaye temps yi sonn naa lool ci yow ma nga fële ca 77 151 56 751 56 27. fële ca Ouest Foire waa atu sëy bi maa ngi leen di nuyuwaat yéen ñëpp te di leen sargal suñu papa suñu nijaay Alaaji Basiru Jaañ Marème Diop dañ ko doon ñaanal barki démb mhm. mu am quatre ans ci suuf yàlla na yàlla teg loxoom ci njaboot di ko teg ci loxo Nafi Jaañ sama sangu buur boobu mhm. mu séddaleel ma ko mbooleem famille bi awalaay ci awa awa Jaañ ca ca Kokodi wallaay xarit ndeysaan dëgg la awa Jaañ ñu ngi ak Rose Jaañ mu baax mi jërëjëf sama sangi buur yooyu nga xam ne maam Fatma Mbàkke sama sang boobu yi tamit mu sëriñ Saaliw ambassadeur jóge fële ci Espagne ñëw indil ma teranga nga yu toll nii. macha allah kooku Balla Aïssa Boury mënuma laa bañ a jox sa wàccuwaay. sunu xel itam dafay dem ci ndey soo Gueye ca France wallaay ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax Woody Tambédou moom ma nga London mi ngi nuy seetaan ñu ngi koy nuyu di nuyu magam jaaraay waaye yaayam itam ma nga Banjul nu ngeen nuyu waa Banjul yëpp dama am benn paquet pour yow euh, Mami Linguère soxna euh, Aminata Jara moo la ko jox mu ngi lay nuyu bu baax boole ko di la sopp na ndoy baan dana la seet si kon boog tam fàttide itam ca Ndar ñu ngi nuyu képp koo xam ne daal dangaa yeewoo Ndar ñu ngi lay nuyu bu baax a baax rawatina tan faak idda moom itam am njëkkee la xarit la sunu tata la ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ajaratu Anna Gueye bosu Evatra noonu laa lay wooyee yaayu mameeg bijok euh, Minna noo ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax boole kook di leen sopp képp koo xam ne daal yaa ngi toogoon di seetaan émission bi ñu ngi koy rafetlu mhm. waaye di wax rek di gën a rafetal di wax ak ñi nga xam ne danoo am ay doom te bi doom dikkee indi mal malformation bu ngeen leen rafetalee rek nu rafet bu ngeen ko rafetalee itam mu daadee rafet mhm. te yomb lool ci yéen yàlla mooy sedd te lu mu la jox da nga koy nangu moo tax dañuy nangu bu baax a baax a baax boole ceek tàllalaat sunu loxo di ko ñaan mu mu dolli nu macha allah mu yokk nu courage mu yokk nu fulla mu yokk fayda ba nga xam ne dinañu mën a gunge sunu doom yooyu te incha allahu bi dana ko def lu waaye di def ci lu baax rek pertoo ko ndax ëllëg dana ñëw nga am nga bànneexu ci noo ngi leen di jox rendez-vous suba incha allah ànd ak soxna mami Linguère Cher euh, Ndoy Baan ak seen xarit itam Eva Tra jërë ngeen jëf remercier équipe technique bu wareef ndax on a une belle équipe Lassana jigal yi à toi ñoom Petit Ndoy noo ngi leen di remercier incha allah jox nañ leen rendez-vous suba jërë ngeen jëf